ah maa ngi leen di fay. nga ñëw ànd ak suñu ministre nga nekk kenn koo xamante ne suñu bàyyi nga ci làmb kilifa nga ci làmb ñëw bi lan la rawatina ki tëgg làmb ji. mais dama ñëw d'abord pour sama rakk le ministre des sports sama xarit la sama rakk la ñëw aussi pour le jeune jamaïcain di promoteur boo xam ni xale bu yaru la bu baax bu respecté nit ñi ñoom moom rek jaroon na ma ñëw sax mais nag euh, Matar Ba lu muy def aussi. su ma amee tuuti jot rek damay ñëw moo tax dama pare sama réunion à 17h30 rek taal sama oto nii naa ñëw pour def acte de présence pour mën a dellu. gis xale bu mel ni jamaïcain doon xale waaye vraiment saa yu làmb indi beneen innovation amateurs yi ñëw amateur supporters yi ñëw mbëru làmb yi kontaan tey boo ko doon ñaax ki nga xamante ne yaay bàyyam ci làmb ban message nga koy làmb. mu bayee soppeeku rek yaru. respecté na magam yëpp respecté ay papaam ku ko sax da koy bëgg yërëm ko man Jamaïcain kay dama ko jël kom sama doom parce que promoteur bi nekk yëpp ñii samay doom la nu ñii samay rakk la nu ñii samay jarbaat la mais moom nag spécialement dafa wone yar goo xam ni ñun au lieu que mu rus ñun sax ñoo koy rus man dama ko rus ndax yaram. yàlla na ma yàlla jàppale. sànq daf ne ma yow foo dëkk. tey nga organiser gaal bi suba nga dox. li tax ma laaj ko loolu mooy fu mu dem mën na faa dëkk moo tax ma ne ko foo dëkk même Banjul da ngay demoon fële dëkk dem na bay xëccoo sax président fédération ba nga xam ni kon baaxaayam ak yaatoom moo ko may loolu ak générosité am yar moom lu mu la mayul leneen la ko may parce que yàlla noppi na ñun ñëpp yàlla noppi na ci ñun soo nekkee xale nag ñëw fekk fi say papa ak say rak ak say mag da war a ñëw rek yaru du la wàññi dara da lay yokk yaru respecté nit ñi yaru respecté nit ñi moom la def moo tax ñun ñëpp ñu respecté ko am na yeneen moroomam yu fi nekk yu yaru itam ku fi yaru ñu respecté la rek def la comme suñu bopp def la comme suñuy doom c'est parce que ñëpp la ñu yéene jàmm ñun moomu nu yëf yi yàlla moo noppi na ñun dañoo war a ñun ñu nangu ndogalu yàlla yàlla noppi na Gaston mënul dara keneen mënul dara Jamaïcain mënul dara ku yàlla jàppale rek a fi nekk nan yaru yàlla jàppale leen. ginnaaw bi nga ñu dàqee nga organiser ay bis yu rëy yu rafet yu am solo affiche yooyu ñu ngi séntu est-ce que Père Gaston dina ko génnee yóbbu ko Gambie wala dina ko yóbbu ci région yi wala yëpp da koy fas yéene tëgg arène nationale. non dana am bu dem Gambie parce que le président Adama Barrow daf ma invité sax war naa fa dem ci fan yi bon suñu demee lu ñuy def ma leen dàqee tey laa a dàq. ay doom nga waaw mais dàq naa ne dama bëgg ngeen tàmm noo waxtaan rek. waxtaanam dama bëgg ngeen tàmm liggéey lu yomb baaxul man kenn mësuma defal lu yomb ba may jógee Louga di ñëw damay wax ni ñaari ginaar laa fi indi ak mbu mais ñeme lu metti ñeme kaan di reyante reyante leen kenn leen yombalal dara gëm leen seen bopp reyante yàlla na ngeen ëppale Gaston yàlla ngeen ëppale sax ko ëppale Gaston mais reyante leen waaw dëgg la loolu message la boo xamante ne yàgg nañu ko dégg ci yow bi may jugee euh, ba fee nu mu tuddati <laughs> bi ngay jugee Louga li nga indi lépp mais Père jot na nag ñu toog waxtaan ndax réeroo amul ñàkk waxtaan am ndax say doom dong ñoo nekk presse en li may def li may def après ngeen di comprendre après ngeen di comprendre yéen sax dana leen jariñ ëllëg mais bu leen yàkkamti bàyyi ma dàq leen rek da ngeen ciy jàng. jërëjëf jërëjëf Père Gaston kontaan lañ bu baax a baax